Hey, hey! Thank you. waaw asalaamaaleykum mbokk internet yi si lamine tv nuyu nañ leen jaajëfal nañ leen ah tey nak ni ngeen ko gisee nii ñu ngi fii ci ñanning ah ñanning si petite côte bi diggante mbuur ak fi nga xamante ne moom mooy zoal faaju ñanning lañ ñëw tey seet si ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa pibër yi pibër yi nag ndeysaan nekk benn lie ba nga xamante ay xale yu xarañ ñoo fi ne di liggéey li dem ci folocage sérigraphe yi ak yeneen ak yeneen ah dañuy dugg si biir jox gaay micro bi ñu gën a expliquer li nga xamante ne moom mooy seen liggéey ay tableau yii nii ñoom ñëpp dañ koy joob ah caméraman ñu dugg si biir pibër yi jox gaay ñu yaatal affaire yi ni muy demee jaajëf. Ah. fii mooy pibër yi gis ngeen ko nii flocage sérigraphie reprographie vidéographie affiche flyers étiquette ah. carte de visite carte de membre vidéographie site web affaire yooyu yëpp dañ koy job Aïcha Gaye ñu jox ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Ngom liggéeyee fii ci Pibéry yi mu détaillé leen li nga xamante ne lépp moom lañuy ñuy defar fii nii ci ci place bi ah. teel ñu ko doon euh, expliqué le naa ñëpp waa Sénégal waa jaspora surtout. ñuy suivre Lamine TV di ko béggee bu baax. donc fii mooy Pibéry ah. donc euh, li ngeen di gis nii mooy support yi ñuy liggéeyee yëpp. ay flocage t-shirt. moo nekk nii ay dimension bu ne am na taille bu ne. ci xale ba ci mag lii aussi ay tableau la yu ñuy PVC, c'est une photo pour seen photo salon yeeg yooyu donc les da ngeen koy am euh, chaque même pas une heure de temps ngeen jot ci ah voilà léegi euh, aussi boulot loolu weesoo am nañ euh, li nga xam mag lui aussi côté hôtel yi la information day génn sac mois donc magazine mensuel la voilà c'est une première aussi sur la Petite Côte voilà le la de defar restaurant yi am ngeen aussi lepp li nga xamne moy menu mhm. menu yaangi ni dañ koy defar tout mhm. ça voilà dañuy defar li yeb menu ainsi de suite ay panneaux publicitaires carte visite mhm. ay bannière ay autocollant ay porte-clés ay cases tout cas dañ koy defar fii nii ci support ak yan support ngeen di bind parce que ci ay oto sax. waa dañuy bind ci oto. Mhm. dañuy bind ci seetu même dañuy bind ci verre aussi ak ci vitre. ay kaas ay kaas ay plateau ay assiette loolu nag aussi mu ngi euh, gën a fës ci Saint-Valentin bi. Mhm. ñi nga xam ne dañuy bëggante dédié Lamine TV benn.

lépp li nga xam ne mooy tirage imprimante aussi dañ koy def A4 a trois a cinq ba A2 aussi dañ koy def mooy nga xam ne affiche bi gën a ngànd A2 bi loolu yëpp dañ koy def voilà aussi euh, mayo Sénégal yi ngeen gars yi na ngeen ñëw waa bi am étoile aussi disponible na bëri. ah yaa jëf. waaw di bëggewaat lamin TV bu baax ah, ci visite bi mhm. euh, ci confiance bi aussi mhm. parce que gis naa gis nañ liggéey bi muy def bu baax ci Petite Côte bi mhm. ñoo ngi koy jaajëfal mu doon ay Lamine TV yoo xamante ne fu ne lay dekk adresse bi ak numéro téléphone waaw adresse bi fii euh, mu ngi nekk en face euh, centre de réadduction centre de réadduction donc numéro téléphone bi mu ngi nekk 77 275 96 75. fii ci Nianing fii ci Nianing. dispo diggante Joal ak Mbour. ak Mbour waaw diggante Mbour ak Joal. diggante Mbour ak Joal. fu waay nekk ci Sénégal aussi mun na commander ngeen livré ko. exactement fu waaye nekk ci Sénégal boo commandé rek ñu taxaw ci incha allah lu gaaw. jaajëf jaajëf yi. Hadi yo, hey, vamos a Nicolás, goleiro.